kon yàlla rek mooy malik di malik yàlla mooy malik di malik mu matale sëkk ñaari melo yooyu tur la woo xam ni nit dana ko tudd manes naa tudde nit malik li dëgganut daal nit tuddoo ko mooy saahin saah te mooy malikul muluk يالرك موي بوربوريك لول كان سنت واي دوما دام ملك الملوك واي نك ملك ديس نك واي نيت ني نكوي واي سول بروم دغالنا ني واي نيت ملك ناخ سول بروم موكو ساخال سي القران ني وكانا وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا دلوا سبحانه وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا كن ملك دقل من يويكو نت نت سنبهم سخنا أمنا تسوف يوسف قالوا نفقد سواع الملك وهي لك بور دقنك أقور دقينك يالدك أم ndax mooy kii joxe ak nguur di ko nangu ci saa bu ko neexee comme ni mu waxee ci مالك الملك توت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير كون بور دغ مو يالا نخ مو من جوخ انغور موكو من نانغو موكو من ماي موكو من خاني واي جنن غور بور بور يالا رك اي فرماليتي دا واي دونغور مرسك te it dafa am fu mu yem ndox day toxo nguur gu nguur yàlla day toxo benn buur bi folliku ci bi muy dund mbaa mu dee nguur ga toxoo ci ay loxoom kon nit buñ ko woyee buur tur aw tur la rek ab taklier rek ay nuru waaye dëgg dëgg buur yàlla la ku ne ci nit ñi nag mën naa alalam waaye sa alal ji moom sax boo seetee ba seet ba seet taxawaayu ndénkaan la taxawee loolu la yàlla dénk waaye dëgg-dëgg moom moo ko ndax dafa jaar ci loxo di jàll ndax day am jamono yoo ko moom rek yeneen jamono keneen moom ko kon dafa mel ni ndénkaan lay teg te buur dëgg yi day mën a def ci ak ngoram nu mu ko neexee mën caa dindi nu mu ko neexee waaye saa boo xamee ni am na looy bëgg te lu mën a nekk baa am looy bañ ba noppi muy am lu mel ni nguur yi xew léegi mën nañ ni président bi gën a mag ci président yi jamono président Amérique dafa am yeneen lobby yoo xam ni daanaka ñooy doxal nguur ga ñoo koy doxalal waaye saa bu jëlee décision dara ci dara te ñooñee ànduñ ci sax la mu bëggoon du jàll kon daanaka nguur gu manqué lay doon te moom mi ci gën a mag laa wax waaye président yi des daanaka ci doxin wala ñuy dox mooy lu bari luñ bëgg du mën a nekk surtout réew yi démocrate yi ñuy wax ni nga xam ni jëmmi démocratie ci boppam rek moo xaajale pouvoir yi ñett ci xaaj def poir boo xam ni nit ñi ñooy tànn loi ñooy waxtaane loi bi beneen pouvoir boo xamante ni mooy pouvoir bi koy exécuter moo koy doxal te mooy nguur gi ci boppam ak beneen poir boo xam ne mooy poir bi àtte ñetti pouvoir yi moo am ci euh, ci euh, programme démocratie kon nguur dëgg buur dëgg rek kon yàlla képp la ma doon waaye nit sax euh, aw melo rek la waaye matut ak nguuram matut naka noonu nguuru adduna lu mu yaatu yaatu ak lu mu réy réy ak lu mu daldal ak lu lu mu lu mu mat mat lu mu yenu yenu max na rek fii ci àdduna lay am waaye agul ëllëg suñu borom ëllëg moom képp moo fa am nguur nguur te mooy al mulku yawma idinil xaqu lirrahman delluwaat wax ci beneen aaya ni wal amru yawma idin lillahi mbir ma bis boobee yàlla képp ko moom wax ci njëlbeenu suratul fatiha ni maliki yawmi diin te it mooy maliki naas di ilaahi naas kon buur dëgg it day doyloo jëmmi boppam doyloo ay meloom bañ a ajoo kenn kon kooku yàlla képp ko mën a doon ndax nit ku ne rek dangay aajowoo sa morom kenn nit ku mën a jàll amut ndax nit euh, dafa tàmbulee ci ak néew doole te bu ne jàng fii ci àdduna di diir bu gàtt yi ak néew doole lay mujje kon ittewoo gi mu ittewoo ñeneen tabi'a la ci moom su borom moo ko kon buur dëgg yàlla képp ko doon ndax moom képp moo ajuwut kenn allahu alladi xalaqakum min dofin summa jaala min baadi dofin quwa summa jaala min baadi quwatin dofan wa shayba kon nit ci ak néew doole lay tàmbalee doole luy gaar la dir bu gàtt gannaaw bi néew doole gi dikkaat mu mel ni sax na ci alxuraan baatu mulk ak malakut suñ ko wax ci alxuraan tabaraka alladi yadihi almulku wa huwa ala kulli shayin xadir beneen aaya mu wax ci ne fa subhaana alladi biyadihi malakutu kulli shay lan mooy xàjjale lan mooy teqal diggante mulku ak malakuut ñenn ci borom xam-xam dañuy wax ni al mulku mooy milkul ajsaam mooy moom yaram yi wal malakuut mooy milkul nufuus te mooy moom bakkan yi moom moom la ci biir kon mulku bu ñu waxee mooy moom li ci kaw malakuut mooy moom la ca biir Sëriñ Tubaa radiallahu anhu wax na ni nguurug suñu boroom nguurug asamaan juróom-ñaari asamaan ak juróom-ñaari suuf day lu toll ni feppu atom zarra kenn amu ko ci daan yàlla rek ko moom moo tax mu ne walillahi mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in qadir loolu seen duwaal mu la ko waxee dafa ne nguurug juróom-ñaari asamaan yi ak juróom-ñaari yi day kenn amu ci lu toll ni fepp aw fepp lépp yàllaa ko moo tax suñu boroom wax ci alxuraan walillahi mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in naka naan mu wax ni yàlla mooy borom nguur gi nanguwul ak bokkaale doyloo gi mu doyloo boppam ba soxla kenn dara mooy tegtale ak uluhiyatoo moom yàlla waaye ittewoo gi ko ñépp ittewoo it mooy tegtale ak rububiyatoo moom yàlla mu ni moo tax suñu borom wax ci alxuraan xul a'udhu bi naasi ndax ñépp dañ koo ittew mu ni maliki naasi ndax soxla kenn dara mu ni ilaay an naasi ngir mu moom lépp noonu la sëriñ tubaa tafsiri al mulk diggante mulk ak malako sëriñ tubaa dana wax lépp lu looy xool ci suuf ba ci asamaan nga di ko gis loolu ci mulk la bokk dama ci asamaawu ilal arshi ci malakut la bokk kon delluwaat na ci tafsir bi borom xam yoo xam rek ni mulk mooy milkul ajsaam malakut mooy milkul nufuus mooy kon li ngay gis mooy mulku la nga gisut mooy malakut sëñ bi wax ni yaa maalikal mulki lii wasaata duuna jawan fil mulki wala malakooti daxri allahu yow mi moom góor gi yow yaatalal nga ma ci mulk ak malakoot lépp mooy zahir ak baatin lu ci ne suñu borom may na ko ci may yaatu del wax ni yaa waasiu yaa zal mulki wa habta lii muxjila ahlil mulki yow mi yaatu yow yàlla yow mi borom nguur gi may nga ma lu gàcceel mi nguur شتان ما بين الذي خط هازو وبين ما هزتو ما هازو وجدت يعني لدو سمالي تنيوم دي سوري نروزا بنتان ينك الملك اغمالك بملير تنون لن لتي جام بي ورا من تيرو نتكي لن مو يأبتيرم تي بات الملك تي تولي على ودي الملك مو جام بي سابو ولوني يالا مو مالك الملكي في الحقيقة تي دق دق مو مقولي كن أمو تي دراه xam-xam boobu dina ko puus ci aajoom yépp mu jëme ko ci yàlla di ko sàkku ci yàlla xam-xam boobu dina ko puus ci mu fab toppam gépp jox ko yàlla di moytu it juuyoo ak ndigal yàlla yi ndax ci biir xam-xam boobu dina ci yëgaale ni buur bu ne dafa am aw dig fa inna li kulli malikin himan wa inna himallahi maharim te bu dee yàlla aw diggam yu mu aar ne bu ko kenn laal mooy yi mu araam loolu ba tey nit ki mu dégg maanaam almalik dana ko dimbale ci mu moytu tere yàlla yi nit ki bu déggee maanaam almalik te doon ak faqiir yorul dara lan la ci war a mën a mooy ak ñàkk du ko puus ci muy toroxlul nit muy toroxlul di toroxlul ku yàlla mi nga xamante ne moom moom dëgg dëgg dëgg keneen ku yor rek dalaa dénk waaye moom moom ma moom rek moom lay toroxlul ويكبرني لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين بلتره لمك بلتره لمك مك مك بلتره للملف مك غير خيمتف نغلو نعم، وانكم دين له واسترزق الله مما في خزائنه fa innamal amru baynal kaafi wal man boo sàkkoo boo soxlaa wërsëg na ko sàkku ci yàlla na nga sàkku wërsëg ci magasin ci yàlla mi yor ay magasinam ndax lam la bëgg a may kat lu yomb la ci moom ndax ci diggante kaaf ak noonu rek la ku muy kon rek fay ko mhm. mu teg ci ne inna alladi anta tarjuuhu wa tamuluhu min albariyati miskinun miskin li ngay mébét ak a yaakaar ci mbindeef yi sorewut ak miskin bu doon doomu miskin amut te bàyyi mu mu yaakaar tëniwu